fanweer ak juróom ñaar fukki ndigali yàlla yi mbokk yi ñuy déglu asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoon njub mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom faaw am na nu mbégte ci li nu mën a dellu tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub njàng mi weesu gisoon nanu ni tundu sinaay wépp doon saxaare ndax yàlla aji sax ci moo fa wàcc ci biir safara ak dënnu ak melax ngir jottali bànni israel fukki ndigalam yi yàlla artu woon na israel ñu bañ a laal tund wi mu nekkoon ngir bañ a dee yàlla dafa leen bëggoon a xamal ni mu selle tey jii nag danu fas yéene niir fukki ndigal yi ngir mëngale leen ak sunu bopp ba xam fu nu toll fa kanam yàlla aji sell ji nu ngi jàng ci tawret téereb gàddaay ga saar ñaar fukk bind nañu ne gannaaw ba yàlla wàccee ci tund sinaay ci biir safara mu wax bànni israel kàddu yi yépp man maay aji sax ji di yàlla sa boroom bi la génne réewu misra këru njaam ga bul am yeneen yàlla ndare man loolu mooy ndigal lu jëkk li yàlla aji sax ji nee na bul am yeneen yàlla ndare man moom rekk a war a nekk sunu yàlla warunu topp kenn ku moom moom kenn mooy boroom bi yàlla ji bind ji dong mooy ki nu war a jaamu waaye li gis ci réew mii ak àddina sépp leneen la nit ñi dañuy jàpp seen moroomu nit teg ko ci palaas boo xam ne yàlla rekk a ko yelloo lu ëpp ci nit ñi bu ñu amee ay jafe-jafe wala ñu am gàllankoor ci seen dund li ñuy jëkk xalaat du walbatiku ci yàlla ñaan ko moom mi sàkk lépp mën lépp xam lépp waaye dañuy wékk seen yaakaar ci koo xam ne nit la ni ñoom dem ba di ko jox sax cër bi yàlla képp jago ñi defe noonu jeneen yàlla lañu am te loolu bàkkaar la ci ñaareelu ndigal li nag yàlla nee na bul sàkkal sa bopp xërëm bu leen sujootal te bu leen jaamu ndaxte man maay aji sax ji di yàlla sa boroom yàlla ju fiir la ci ndigal li yàlla ngi nuy wax nu wottu sunu bopp ci xërëm te xërëm yooyu nag yemul rekk ci nataal yi ñuy yett di leen jaamu ci yenn bërëb yi walla ci roqi kër yi ab xërëm dem na ba ci lépp loo xam ne dafay dox suñu diggante ak yàlla naka noonu mën nañu gis ñoo xam ne futbal mooy seen yàlla ndaxte futbal moo leen gënal yàlla ñeneen ñi tele mooy dox seen digganteeg yàlla faalewuñu gëstu ci kàddug yàlla ba xam ko amuñu jotu ludul seetaan tele am na ñeneen ñoo xam ne dañuy takki téere ndaxte yàlla moom ci boppam doyu leen am na ñeneen nag seen alal mooy xërëm bi wuutu yàlla li am place bu jëkk ci seen dund du yàlla waaye xaalis la dañuy dugg sax ci lu neexul yàlla ngir seen xaalis yokku kon alal ju mel nii xërëm la lépp lu wuutu yàlla itam xërëm la ci ñetteelu ndigal li yàlla nee na bul jëfandikoo turu aji sax ji di yàlla seen boroom cig neen ndaxte aji sax ji du seetaan mukk kiy sofental turam waaw yàlla bëggul nuy jëfandikoo turam wu sel wi cig neen waaye bés bu nekk mën nga dégg nit ku digaaleek moroomam dara naan ko inshaallah bu soobee yàlla dinaa def nangam walla dinaa dem bërëb sàngam fekk ci biir xolam fasul yéene def loolu sax dafa jëfandikoo turu yàlla ngir gëmloo moroomam mi ay fen loolu nag dëpowul ak coobare yàlla te it am na ñeneen ñoo xam ne dañu naan la billaay defuma nangam fekk ñoo ko def walla ñu ne la yàlla xam na defuma lii ak lee te fekk na ay feni neen la ñu mel noonu nag ñu ngi sofantel turu yàlla kàddug yàlla nee na sa waaw na nekk waaw sa déedéet na nekk déedéet loo ci teg ci iblis la jóge ci lu jëm ci ñeenteelu ndigal li yàlla waxoon na bànni israel ne del fàttaliku bésu nooflaay bi def ko bés bu sell na nga dox say soxla juróom benni fan def sa liggéey bépp ndaxte ci juróom benn fan la aji sax ji sàkk asamaan suuf géej ak li ñu ëmb lépp waaye noppalu na ca juróom ñaareelu fan ba ci loolu gis nanu ne yàlla dafa bëggoon bànni israel noppalu benn fan ci juróom ñaar yi ngir teral yàlla ci juróomeelu ndigal li nu yàlla jox nag mu ne teralal sa ndey ak sa baay ngir nga am gudd fan ci réew mi la aji sax ji sa yàlla di jox ci loolu mën nañu ci gis ne sunuy waajur ñu am solo lañu ñu mata fonk te faw nu jox leen cër bi ñu yelloo waaye du loolu lañuy gis ci jamono jii ndaxte dangay gis doom yoo xam ne seeni waajur dañuy wax ñu gëdd leen ciibatu leen dem seen yoon te duñu am benn toppatoo ci waajur yi xanaa dëkk ci tàngal seen xol rekk waaye du dundin woowu lanuy jàng ci juróomeelu ndigal li coobare yàlla ci doom yi mooy ñu sopp seeni waajur te déggal leen ci lépp lu neex yàlla dëppook coobareem ci juróom benneelu ndigal li nag yàlla nee na bul rey nit ci loolu yàllaa ngi nuy wax ne ku rey nit tooñ nga yàlla ndaxte yàlla moom mooy jox nit ñépp bakkan ak ruu rey nit mooy bañ yàlla ndaxte yàlla dafa sàkk nit ci melokaanam te kàddug yàlla daf nuy won it ne rey nit yamul rekk ci buum ndaxte mbind mi nee na képp ku bañ sa mbokk reykat nga yàlla du àtte nit ci kaw li muy def rekk waaye itam ci kaw li muy bëgg a def sax maanaam ci kaw yéeneem looloo tax bañ nit ak rey nit ñooyam fa kanam yàlla ci juróom ñaareelu ndigal li yàlla nee na bul njaaloo sëy may gu neex la te ci aji sax ji la jóge yàlla ku sel la te dafa bëgg nu sel itam moo tax gannaaw ba mu joxe góor jabar ji mu wara sëyal mu bëgg mu yem ci soxnaam te bañ a am benn bëgg-bëgg bu bon ci jabaru keneen kàddug yàlla nee na na góor bëgg jabaram ni mu bëgge boppam te it koo xam ne kii fase nga sa jabar te du njaaloo tax boo seyaatee ak keneen njaaloo waaye ndegam nit ñi dégg dinañu ndigalu yàlla bay def li mu leen aaye ñuy jot seen payug jëf ci seen yaram moo waral wopp yu bari yi di dal nit ñoo xam ne seen àndandoo ak jigéen teguñu ko ci anam yi yàlla tëral te am na leneen lu ngeen war a xam njaaloo yemul ci li nuy def ak sunu yaram rekk waaye day ëmb it li nekk ci sunu biir xel ci loolu mbind mi nee na képp ku xool jigéen xedd ko njaaloo nga ak moom ci sa xel gannaaw loolu yàlla joxe na ndigal ne bul sàcc loolu leer na nàññ waaye war ngeen xam ne ci bëti ki nu war a àtte sàcc yamul rekk ci jël loo moomul soo bëggee jël yëfu jàmbur te jëloo ko sax sàcc nga ndaxte yàlla xol lay seet sàcc am na ay wàll yu bari su fekkee ne sa njaatige maanaam dénk la ab liggéey te di lay fay ngir liggéey boobu mu yaakaar ne yaa ngiy liggéey fekk yow ngay tappale rekk ngir waxtu wi dem bu boobaa yaa ngiy sàcc waaw sàcc nga sa njaatige lan mooy mbugalu sàcc nag ak bépp bàkkaar moo di dee te tàbbi safara sudul fay mukk juróom ñeenteelu ndigal li nag nee na bul seedeel sa moroom lu dul dëgg loolu it leer na nañe yàlla aji dëgg la te fen jegewu ko fena wante képp kuy fen dëppoo na ak jikkoy seytaane ndaxte fenkat la te ci moom la fen soqi ko moom la mbind mi wax seytaane waxoon na ay fen sunuy maam aadama ak awa te ba tey mu ngi naxe nit ay fenam kuy fen dafay niroog iblis ci fukkeelu ndigal li nag yàlla nee na bul xemem sa kër moroom bul xemeem jabaram wala jaamam bu mbaa bu jigéen nagam walla mbaamam mbaa dara lu mu moom ndigal lii dafa nuy won bu leer ne yàlla xam na ni xolu nit dënge te soxor xemem ak bëgge ci xolu doomu aadama la nekk sunuy xol yu bon a tax nuy xemem jabaru jàmbur walla nuy teg sunuy bët ci li keneen am te amunu ko loolu bàkkaar la ndaxte kàddu yàlla nee na indaalewunu fi dara te du nu yobale dara kon su nu amee lekk ak koddaay nanu ko doyloo loolu nag mooy fukki ndigal yi yàlla dénk muusa ak bànni israel nan lanu mën a àggale sunu njàngum tey mii nag xanaa ak benn laaj laaj bi nga war a tontu mooy ndax sàmm naa fukki ndigal yépp xëy na xam ngeen ba noppi ne bi ramukat bu sell bi ganese àddina tënkaloon nanu fukki ndigal yi ci ñaari ndigal yi mu ne nanga bëgg yàlla sa boroom ak sa xol bépp ak sa bakkan bépp ak sa xel mépp te nanga bëgg sa moroom ni nga bëgge sa bopp ñaari ndigal yooyu ñoo tënk yoonu muusa wépp léegi nag su fekkee ne bëgg nga seetlu sa bopp bu baax ba xam ndax sàmm nga fukki ndigal yàlla yi wala déet li nga war a def mooy laaj sa bopp ñaari laaj benn sama digganteeg yàlla nu mu mel ndax bëgg naa yàlla ak sama xol bépp ñaar sama diggante ak nit nag nu mu mel ndax bëgg naa sama moroom ni ma bëgge sama bopp naka la sa digganteeg yàlla mel bàyyil sa xol tontu ak maandu te ci loolu ndax bëgg nga yàlla ak sa xol bépp ndax bëgg nga ko ak sa xel mépp ndax yàlla ak kàddoom am na place bu jëkk ci sa dund te ci lu jëm ci sa digganteeg nit ndax bëgg nga sa moroom ni nga bëgge sa bopp ndax dinga jiital sa moroom ci lépp ndax dinga toppatoo sa moroom ni ngay toppatoo sa bopp ndax dinga defal nit ñi lépp li nga bëgg ñu defal la ko su fekkee ne mënuloo tontu waaw ci laaj yooyu yépp xamal ne fa kanam yàlla mooy kat ak bàkkaarkat nga ci sa pexey bopp mënuloo yaakaar dara lu dul alkande atte yàlla bu jub bi ndaxte mbind mi nee na képp ku dul topp lépp lu ndigali yoon wi santaane yàlla na alko ñi ragal ñi gëmul ñi def lu ñaaw ñi boom nit ñi njaaloo luxuskat yi xërëmkat yi ak fenkat yépp seen añ moo di déggu safara ak tamarax bi yàlla ku sell la te mënula dékku lu sell di yàlla ku mat la te mënula nangu dara lu matul moo tax mbind mi ne ku sàmm yoon wepp waaye xëtt ci lenn ndigal rekk jàdd nga yoon wepp fexe sàmm fukki ndigal yi du tax kenn jub fa kanam yàlla ñépp a bàkkaar ba jotetuñu ndamu yàlla moom la kàddug yàlla wax xëy na kon am na kuy laaj kon lu tax nag yàlla jottalinu ay ndigalam su fekkee ne kenn mënu leen a sàmm ci lu wér laaj boobu laaj bu am maana la te bu soobee yàlla ci émission bi di ñëw dina déglu tontub yàlla ci boobu boobule laaj waaye sunu jotu tey jeex na kon fii lañuy tàggoog yéen di leen gërëm ci déglu bi di leen fàttali ne su ngeen amee ay laaj ci lu nu jàng tey mën ngeen nu bind ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat ci li kàddu yàlla wax naan ku sàmm yoon wépp waaye xëtt ci lenn ndigal rekk jàdd nga yoon wépp